te di la jox nuyoo Serigne Mountakha mi nga xam ne moo toog jataayu Cheikhul Khadim di ko jaarale ci Serigne Cheikh Serigne Amdi Fall mi toog seex yi Ibra di ko jaarale ci euh, loxo sëñ Bass Anta Ñang mi toog jataayu Maam Cerno Birahim ak mbooleem fu Serigne Touba def dara euh, di sant nag ci jataay bii dégg nañ buñ fi toogee li nga wax ak li jëwriñ mee wax fii nag tey bu sëñ Tuubaa nikkoon ci dëkk bi fi la jëm si ndax moom la am te kenn ku ne la nga am ngay duggee géew te sëñ Tuubaa fii la am ndax fi ngeen fi ngeen ne bu dikko ko sëñ Tuubaa kon bu dikkoon dëkk bi fi la jëm si kon nag moo tax ma ñëw fii waaye nag liñ fi dégg lépp génnut sëriñ bi dinaa génnut sëriñ bi nag ah ndokk yàlla euh, doomi sëñ Touba nak dafay nekatu da ngeen ko xam sëriñ Touba nekatu fi sëriñ Touba mun bokka fi ne tuddu nga Cheikh Mamadou Moussa tuddu nga sëñ Fallou ba ci Cheikh Mamadou Mourtada rek man noonu lay wax kenn dafay nekatu nak no fi dess legi te sunuy mam la won ak seeni mam sunuy bay la won ak seeni bay no fi dess na ngeen fexé nak bu len ñu jappé ñëlé wala ngeen ñuy xol te ne melu ñi ñom tuñu mel ñom ba dina tukki romi seigne touba mom mënut a doon sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa te mënut a doon ku sëñ Tuubaa foofa nag la ñuy ak ñoo yeen waye li ci dess nak noko bokku fi ni ñi ngi fi te noonu duñ leen sant duñ leen wacc te yeen du ngeen sant du ngeen wacc kon li ci dess moy and mu mu ta ñak ina and mu ta ñak nak kon nañ jema and da ngeen nu yeeram nu yeeram leen leen ànd ci yalla li fi mata def ko ko doon def wax nga ko ken du ko ci fek ak ay jambar sax mënu musa da ko tim ne ko ko goree ngi nii ku mën a nga muñu nii ku am jom ngi ni ci njariñ ku mën a muñ ngi nii la wax ku goree ngi nii ku am jom ngi nii loolu la ko wax te bis bam mu dikkee fekk ko fa kon non war nañ ko am luñ ko ree lii nag lanu am ci yéen ngeen teral nu dikk te yàlla tax man nag damay faral di wax ne ki ñëw daayira ak ki ñëw daayira fu mën a jaar danañ wuute mun ko ñàkk loolu la yàlla dogal daayira nag day sàmm nit ci bis biñ fi ñëwee ba bi ngay dékkaat ci ku ko xam suñu Cheikh Mbacké dafa bokk ci mag ñi waaye yàlla da ko teela mu teel a génn gis tubaab yi daje di def yu mel nii mu ne di daal yaakaar nañ ci mbooloom seen tubaab la génn ko def daayira kon nun noppi nañu jaxum pamee bu jiitee sëñ Moussa sëñ Modou Moussa Modou mi jiitee sëñ Fall xam ne ku fi des ko du nun li ci des nag doonut lu nuy maye de lu nuy jaay la te su koy jënd nag noonu nag ko topp danga ba vingt quatre heures rek nga gis ci ñun loo xam waaye waaye loo ci lu ngeen ci man ñu ngi nii noo fi des li ci des nag nan ko bokk wóolul te te yàlla tax te ànd te yàlla tax bu ñu ko defee lépp mën naa tax te ngeen góorgóorlu ci kër Sëñ Tuubaa ji lu ngeen bëgg mën naa yem màggal gi nag Cheikh Modou Moussa ko njëkk a tàmbali ñi dañuy juum Sëñ Tuubaa ko bëgg wax leen ko Sëñ Fallu musta wax ci kanam Cheikh Moussa ne sama mag ju ji rek na ci yàlla loolu fa Sëñ Tuubaa Sëñ Moussa mas na koo mu dikk mu ne ko damaa bëgg dem ci ba nga dañ may sonn ci ndox mi te mënuma ci dara ma yaakar ko ci bëgg nga ñew bam dikké dikkee fallu di wax sëñ dane ko waaw néma na len seen ñew yi dafa bari mu ne ko am ah, nak dara fi ñew buma ma yónnee de ndax man moy sama kilifa yow nak mu yaay kilifa man sama serigne lu ma wax suba sax ma yónnee watul ma ñewat sëñ bi ne ko lu mu wax mu ne ko am ndox la wax mu ne ko da ngay jog dem so demee bal ngaa egg dana ñew sëñ bi ne ñokket di dem di ngar ngar mu ne ko kay mu ñu mu ne ko nuyo lekki sëñ falu tàllal loxom am ci nee amna am kum tey mu ko mi ngi me kay la la bolé moom so dé ya, bala ngaa egg ndox mi kon digal limi maye bari na na ngeen xamni nak nag no fi dess te ñoo mëna a te kenn ku ne am kum jox sa bop da ngeen di baña jaawalé dun doomi sëñ dun kon ñi fi dess nun la nun nak ngeen jox seen bop kon waye ba ngeen jox suñu bop nak taxulu nun am ko tax ka tax nak mom ngeen bu leen xolé da ngeen joom na ngeen jum te xam seeni sëriñ te di fa dem te di ko jox addiya mu xam leen li ne des koy seddalee ëllëg te kenn ku ne jigéen boo amee borom kër ba tas ba am juróomi fukki borom kër ku njëkk ka moo koy ram noonu la am murid mel ci koo jébbul njëkk jébbul lay laa sin Sëñ Tuubaa dafa noppi Sëñ Tuubaa dafa lim da uyu ma da ko liggéey ba moom ko téye ko kenn mu ta ba ko moom kon li des nañ ko nañ ko nañ ko séddoo ni ñu koy séddoo mooy kenn ku ne yor na ko kenn ku ne yor na xalaat kenn ku ne yor am xel di ko indi di ko xel ci sëriñ bi ndax mu dox lay doon waaye jëwriñ nangam jëwriñ nangam déedéet jëwriñ mën a loola dara kala mën a dara ëllëg dañ la teg ci kuusu ba mel te boobaa doo fa yaakaar kenn ku dul sëñ bam loolee nag la lay dimbali mooy lu ñu la wax ci sëñ Tuubaa nga def ko màggal gi mun leen tee ba du neex sëñ Cheikh Mbacke dafa am ko tàggu ko damay tukki sëñ bi ne ko bisimilah mu dem ñu dem ñu ne ko jigéen ñu ne ko da ngay da ngay dem màggal fukki fan juróom ngay dem màggal ba fi ba fi màggal gi daal di toog ba mu demee ba ñëw màggal ga jàll mu dikkat siñ seex siñ seex na ko dafa jëm mu ne ko damaa dem kat ñu ne ma màggal gi naa nga mu ne ko koy soyoon deel tey du teenu màggal nga dund du teenu màggal ku ne dañuy dee ba jeex du tee màggal gi dox rek kon màggal gi mënu leen tee mu dox waaye ku ci amul jom nag moom ngay soññ ci maggal waaye ku am jom kenn du la soññ ci màggal góorgóorlu leen te indi sas man bala maa dem dinaa dugal sama wee euro ma ngeen fa salel ndax dama bëgg magal ngeen lu ngeen mos mo mos ci inshallah ku ko defu tam ya ko yëg nak li fi dess nak nun luñ wax ñu ni sëñ Fallu sëñ Fallu mom dafa amon kilifa motax lu ne man nak magal gi sëñ Mour Moussa Moussa ñoo day wër di tukki ci bokk yi ndax bobu mag ni kenn ku ne la ngay dem ko tey amna lu neexu te nekk li nak waye bañ demee bam jot ci mom dane waaw sama mag ji dafa nekkon rek sëñ tuwa jur ko tuddi ko yoon ci dara ma xaju fi de waye xel mi rafet na lool de moom la nekkoon ak ñun waaye batin jëfewu ko fi de man nag tey maa fi ne ñu ca penk ba dañoo am seenu bis lu leen neex ñu di ko ci def ñu ne dama bëgg ñu si suñu bis ci soow bi dama fekk ma fii te man maa fi ne tey tëngatuma te li may dama bëgg nu bokk ko loolu la wax waaye dafa amoon kilifa nañ wuti kilifa def ko muy sëñ tubaab di xam ne fii nag ñun bi ñuy waaxu ñëw tubaab yi indiwuñ fi yéen na fi indi jarul na bu jarul làqatu mbàkke mbàkke yi fii ñëwee nag nuñ mën ñoog Cheikh Oumy yam rek maa ngi toog ci ko ngeen tok ci suuf waaye seen xel yi banku gaañ yi nañ leen yërëm te japp leen ngir seigne touba ku ngeen ci xebet seigne touba ngeen di xebet ku ngeen ci wax dara mo ngeen di wax ndax bo ci bopam waye bu doon day dong dara du nu jar kon nak nañ gor góorlu magal gi nak kenn ku ne lañ la sas nang ko def mo gën boko defé ren bilay lay balaa weer da nga xamni seigne touba ci gën na magal gi neex man de moom a taxoon a jóg te man xam naa ne sax màggal dana neex ndax naa yor yor naa tax asalaamaaleykum wa rahmatulah